murit day am fit sëñ Cheikh Fall Baye Góor daana wax naan koo gis mu jommi gëmul sëñ Tuubaa Baye Góor ma ko <laughs> ndax nee na jinne jala jommal ci seytaane rek la ko teg nga yaakaar sëñ Tuubaa di yembare ba mu lay jommal